ak ñettelu édition bu salon international jëm ci walum njur gi daldi nañ koy door ca CICES fukki fan ak juroom ñaar japp ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru janvier bi ñu nekk bobé salon dina lëkkale ay chamakatu xeetu mala bu nekk wayé ñi nga xamné ci yaru xarub la dum lañuy yëngu ñoo ëpp ay gan ñu tassé ci ak ñett ci ñoom li doon ku ci walu wi mom fi ci la nekk di bay waram Euh, de la bergerie Tar Euh, bon, c'est la première fois que j'ai exposé Khar peut-être si Saladambi. mais dans naa exposé Guinard Saladam place de l'obélisque dans daan naa exposé Guinard et puis euh, mais c'est la première fois j'ai exposé Saladam. Moi je suis ñun euh, laadum rek la ñuy actuellement ay ay rek euh, sinon yenn saa yi peut-être mën nga def métissage pour pour pour un besoin personnel quoi mais bu dul loolu laadum rek la ñuy yor. xam nga saladam même boo defee vente tamit boo leen jógee ci salon bi ngeen koy concrétiser parce que fii instant yi nii amoo droit génne xar amoo droit dugal xar donc l'objectif c'est de présenter les moutons waaw mooy mooy saladam bi rek présenter ko rek waaw. pour dire vrai saladamu ren bi moo gën a rëy. Je suis innovation exposant yi tamit de euh, qualité ah, parce que ils ont beaucoup évolué en termes de mensuration affaire ak il beaucoup de xaru ak xaru des différence différence euh, magistrat la magistrat de euh, champion 2016 yaayam tamit euh, ligne Birahim la benn doomu Birahim moo jur yaayam donc euh, Birahim maamam la daal. waaw san sang bu baax la bokk waaw sang bu baax la bokk. waaw am na fi am na fi ay doom euh, ñaari jeune mâle yi nii ay doomam lañu ñaari jeune mâle yi ay doomam lañu kenn ki kenn ki six mois la am kenn ki deux mois la am waaw bon saladam bi saladam bi mun nañu wax ne que. pour euh, pour pour daje la fête la quoi fête la pour euh, dajeeg éleveur yépp ba paré yéna bokk passion yéna a bokk bëgg-bëgg donc euh, fête la dal pour pour dajale pour waaw pour mëna xamanté ak échanger ak yooyu. ah si loolu objectif élevage parce que élevage partage la rek donc on est obligé bokk di di di échanger ay produits di bo amé li jël li bolé ko fi ku nekk. ak li ngay wut daal yow boo manquélee wet da ngay dem ci kenn koo xamante ne am na produit boo xamante ne wet la ëppale yow boo manquélee hauteur nga dem wuti hauteur ku nekk ak li mu am daal ñenn ñi hauteur la ñu am ñenn ñi wet la ñu am ñenn ñi ñoo xamante ne ñoom ci pois la ñuy liggéey ku nekk ak ci li muy liggéey et selon loolu ci ngay xool produit bi nga soxla. Bal xaw mi sëriñ rek. mooy Mam Mansour doomu Alaaji malik <laughs> moo tax ñu tuddee ko ko waaw macha allah <laughs> wa mais bon xanaa di leen remercier rek di leen remercier di di remercier télé bi vision et puis di ñaan yalla yalla barkel ko waaw ñaan yalla barkel ko baax. ay exposants yu jóge ci sous région bi fu ci mel Mauritanie ak Gambie teew nañu ci bobé salon. Oui, Didi, de la Mauritanie la mais en même temps c'est un membre de l'ADAMA depuis fois. Ah, c'est un membre de l'ADAMA, quatre membres donc il n'est pas venu comme un invité, il est venu en tant que membre de l'ADAMA. D'abord, Didi est le représentant de l'ADAMA de la Mauritanie. En même temps, c'est lui le président du club de la Mauritanie c'est lui le fondateur. Donc, euh, donc comme il est le représentant, il sera directement qualifié à l'ADAM. Waaw looloo tax euh, mu en même temps. la euh, et que comme on dit ce sont des l'adum d'autres haute qualité aussi non non ce sont des des souches pures et les les meilleurs aussi les meilleurs sujets du Sénégal parce que mon euh, direct champion 2018 bi Mogifi, le colonel du Domou galactique direct avec production Mon bon organisation ça c'est bien fait parce que organisation chaque fois day am ay chaque jour day am ay ay surveillance mais foire bi aussi est de très haut niveau ah c'est de très niveau di wax rek quand Grand Mali quand même bon surprise dina am aussi euh, bon bergerie gi di benn box la am waaw wax dëgg yàlla tey suñ teew fii si Saladambi 2020 yi naan ko 2020 président Abou moo ñu invité wax deug yalla ñu ñew polo bolo si turi éleveurs Gambia anglais yi nan ko livestock livestock yi Gambia képp ku nekk ci walu jurgi ci Gambia ñu ñëpp bolo anda ñew yo ci si kado Gambia si turi Gambia ñu ñew nak suñu mbokk sénégalais yi téru ñu dalal ñu tek ñu place bu rafet jëmal ñu jox ñu ciir ñuy bëggé lool di ci am contenté waaw asi nañ fi ay har yu mucc ayib har yi ànd nañu ay har yi ladum ñew nañ fi ak 14 har muy anglais nan ko 14 har loolu lañ fi ñëwee peel far yi muy douze xar ay laadum leen suñ maal bi nga xam ne moom lañ ñëwee mooy Sénégambia di doom si grand rang di sët si magistrat gannaaw loolu ànd nañ fi ak femelle bi nga xam ne ñu ngi ko naan anti anti muy doom si pekos anti mu ànd nag doomam ku laam awa awalaam awalaam mu ànd nag doomam ku ñëw wax Fatmata Jubéru Fatmata Jubéru ànd nag doomam muy ona mbote bu ndaw boobu ngay gis ñëw nañ fi ak ay sang yu uute ñëw nañ fi ak saa yi Petit Kifa saa yi Mitra wax dëgg yàlla saa yi Mahou Sey yëppam fi ànd nañ fee suñ ñaari xarit cosaan yi nga xam ne mooy xarit Gambie yu gàtta yi ñu ko naan xarit Casamance ñoom tamit ànd nañoo ñaar ngir ñu né tay su tay su rafété su taré demba tax kon buñ fàtte demba moo tax ñu ñëwa su ñaari xari cosaan yooyu wa wax yalla organiser saison bi rafet na té jaar na yoon wax deug yalla demba officiel on a cérémonie bi xewoon na ministre bi ñëw na fi and ak on a délégation bu am doolé wax deug yalla wa Adam dal ñun amon dara luma luñ leena wax lumay jangé ci ñom mëna jël seen lu rafet li ak seen lu bax li seet naka lañ ko yobo gambi wax deug yalla fi mbir mi lepp jàll na yoon walu média bi lépp jaar na yoon mbooloo mi génn neen visité neen te luñ fi fekk si ay xar fekk neen fi xar yu mucc ayib laadum yu mucc ayib yi nga xam ne loolu wane na ne Sénégal seen jéego si élevage wax dëgg la liggéey neen lu xarañ soo xoolee ni sama càmmooy ñu ngi fi am Mali ñu ngi fi amee Niger Mauritanie ngi ne suma boor te ñoo ñëpp soo seetee ñu ngi dugg si liggéey laadum bi kon dañoo naan Sénégal gàcce ngaalaama bukan nen ñun tamit Gambie lu melni nii seet naka lañu ñoo dimbalante suñu mbokk sénégalais yi ñu wan ñu yoon bi te wax dëgg yàlla ñoo wan yoon bi lool tamit bukan ko ko lu melni ñun tam ñu def ko si Gambie invité Sénégal invité suñu yeneen pays yi nga xam ne nañu ak ñom wax dëgg yalla fi mom buñ fi ñëwé yokuté bu ama am solo lool lañ fi jëlé si walu connexion yi si walu xamanté ak yeneen pays yi si walu gisante ak usines yi nga xam ñoy liggéey dundi juri muy lu melni ni ripaas ñoo ñëpp joxoon nañoo ñoom gis nañ fi yeneen yi nga ci si médecin yi lool yop bokk na ci ngir ku ne jur ne dund gi ku ne jur ne wàllu wérgo yaram gi loolu yëpp wax dëgg yàlla am nañ fi waxtaan ak ñoom waxtaan yu yaatu président Abou Kane tamit duñ mën a wax te gërëmun ko tey ñun Gambie suñoo am li yëpp président Abou kan moo ko waral kon fook ñu ne ko Gambie ñun laay jaajëfal si turi Gambie lépp yow président Abou yàlla gën laa dimbale looy liggéey si élevage ñëpp gis nañ ko Afrique yëpp gis nañ ko rawatina ñun waa Gambie. maa ngi remercier waa Ovision TV di am kontaan si ñoom di am mbégte si ñoom suma naataango bi ñëw jël si ma wax dëgg yàlla kontaan nañ si lool te wax dëgg la fii daal lépp li nga bëgg a xam si wàllu élevage école la. comme nu ma su ma benn mbokki Gambey ñu ko naan Abbas borom Citizen nu ko waxee mi ne saladam bi mooy coupe du monde éleveurs yi anglais yi naan ko wol ko bi livestock mi ne lii coupe du monde la si éleveur su ko defee loolu tamit ñun Gambey yi ñoo ñëw ak temps boobu di dina naa wax ne saladam passé na leneen waaye léegi coupe du monde la si wàllu éleveur su ko defee ngeen xamee ko noonu bëgg neen sant neen leen seen mbokk la Aliou président Samba gi assistance bu Gambie sa jur ngi naan Sénégal jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Gambie yëpp bëgg neen si comme ni ngeen ko gisee ndaje bi soxal na lool bépp sàmmkat ba tax na ñu ngi leen di dig daje àllarba bii di ñëw ngir wan leen yeneen exposan